ngir gunge leen ci seen bëgg-bëgg digital store indi na leen ay xeetu smartphone ak i tablette sur Android 9 yi mu génne te xew ci jamono tablette Core te 4 smartphone Core X4 ak téléphone flottant Shark X3 di ay xeetu appareil yu yéeme te soppi doxalin yu dëgër te nangoo yàgg lool te li ci gën a doy waar ndox mënulu ko dara appareil yi ñuy ànd ak yéen fu ne boole ci lu ñu ànd ak ma bu leen di aar Crosscall di kër gi leen liggéey moom dong moo nangoo garantir ay appareil ci diiru ñetti at mën ngeen a jokkoo ak ñun ci suñuy boutique showroom avenue Bourguiba 33 825 73 00 wala ci Soumbédioune sur la corniche 33 823 77 87 Digital Store améliorez votre quotidien waxuma xarafu keneen de xaraf boo xam ne ku tedd ki moo ko wax man tubay pyjama laa sol te ci lii masqué ko waaw man su ma neexoon sax ñëwee fi puissamment su ma neexoon man maa jàng mu ni bi jiimi hijzim bi jiimi hijzim ca maraaxib jima rajim la jël seytaana rajim jiim ga la jël wax ci yàlla ni ko tëjal ma ko ca moom ñéppam ba lépp lu mu ñaawle mbaa lu di seeni pexe mu bañ a jëm ci man ak képp koo xamante ne bii du adoore suñu borom subhanahu wa taala mi ne xalatul jinna wal insa illa liyan bu duuni damay tàmbalee ci tàmbalikaay bi tàmbalikaay bi mooy lan mooy suñu maam Ibrahima moo ñu tuddee al muslimun dama bëgg ku tedd ki ba mu jógee Gabon ba mu ñëwee une année après mu dem Mauritanie wérdul ma fekk ko fa dama bëgg jullit yépp ñu yore ay awraad ñëpp ñu yore ay wér di ñëpp ñu xool wérdul maxuus ba xam benn wérd génn na ko wala déet c'est très important settantal maanaam wér di yëpp la boole def ko muy benn fédérateur la rassembleur la yoonu murid wii ñuy wax moom il n'est pas dedans nekkul ci biir kenn du nas kurus ba noppi bokk ca pere imaam du bokk ci sàppe yi jutta bi mufradin lanaa faaxal jumal xutta lanaa mux jëla wa amal moo tax bokkul fenn xajul fenn kenn du ko dugal fenn dama dégg cheikh sànq bi muy jàng tuxfatu mu jàng ko ba mu jeex waaye wajaxal tawassuli liman yad'u bii saxaadata daari ni wax fit lii bii loolu muy wax képp koo xamante ne bii yaa ngi jaar yaa ngi ñaan yàlla jaare ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax fit lii bii jooju mu wax wax ji naa ko moom moom ko ne ko kii moom ak kii ak sëñ maam war a keneen ak keneen bu ko jox waaw ndax moom lenn lu muy day wax rek dina waxaale dina dugal ci biir te xamuñu ko waaye lu muy jégglu borom moom amul kii jégglu mooy ku def lu ñu lay jégglu moo tax bu bindee bàyyi nu ko nu koy settantal danoo war a xool li mu ci moom moom ak li mu nu ci moomale loolu moo dig dégg ba demee ca taxmis sirri xabihun maa tax muy wax yaa tax muy wax kii tax muy wax ak kii li dox fil xal bi wal badani dafa am loo xam ni waaye xam naa du yomb ndax itam yenn saa yi dama naan yor ba ca si mbay saar fa mu nekk ma def ab diir ñëwaat ndax damaa comprendre moo tax moom mori uri li wacc ñetti murit am ñetti catégorie la ñu murit murit sadiq murit sadiq wa nabil uri li wacc maliki sabila kulla muridin sadiqin nabila moo tax jëwriñ mënut a ñàkk murit rek dafa am murit sadiq dafa am murit sadiq wa nabil kooku lay woon yoon wi jamono am fu mu toll nun ñëpp nu war a jóg kenn warta toog xam nga dafa am loo xam ne wàccoon naa ak ñun xamal nañu nu ñuy defaroo xamal nañu nu ñuy defaree defaru ak nooy defaree ak li nga war a defar ki nga war a defar ak li nga war a defar dans l'ensemble dinaa ñëw ci fii du murit te ma koy wax jim la ak daal man bu ma neexee sax daj laa lay wooye daj ji wala jidda wala dafa am lu mu wax léegi loo xamante ni bii ni na ko ci ñëpp jàppale mbir yi dafa war a weesu foofu mbir yi fa communauté mouride communauté mouride am na taxawaay boo xam ne bu ñu ko defee budget Sénégal mën nañ koy financé foofu la mbir yi toll tolluwul ci ñuy wax taalibe yi nañ joxe dix mille francs kii cinq mille kii déedéet du loolu une organisation parfaite précise et significative yor ay milliards denc ko Suisse wala feneen lu muy jariñ dee bàyyi ko fi dee bàyyi ko fi Touba mooy sunu sac mu wax ci li mu ci wax lépp boo demee ci Matlabul Fawzeyni li mu wax lépp ca dëkk ba mu wax ko ca waaye Touba en tant que tel toowa ba alif réduit ya mu ne Touba li abdin muridin la lahumu bi xidmatin aw bi hubbin aw hadiyati ñu dégg ko waaye Touba mu wax boromam ni ko na mel ni turandoom hmm? Touba ga nga xam ne mooy turandoom benn garab la ca àjjana boo xamante ni bi àjjana li muy rëy rëy amul benn château wala benn pale boo xam ne amul branche bu fa tiim mu ne ko na mel ni turandoom bu ko xasee wax rek mel na ni Zahir si nun ci ñun la étape par étape époque par époque Serigne Saliou radiyallahu anhu bi ma rayalee ñaar fukki xar ak benn defal ma ko ndékki bi ma dellusee soow ma interprété ko loolu moo waral xisbul xaq gi ngeen di dégg tôt ou tard moom mooy jiite réew mi ndax mooy seet ñoo xamante ni bii ñu jub xocc tôt ou tard mooy seet ñoo xamante ni bii du ñu rawale alali réew mi te lu ñuy def nañ ci bàyyi xel ku tedd ki loolu dina ñëw mënuma koo ñàkk bañ a wax de ndax xam nga lu tax mooy dafa sosoo ci Serigne Saliou ak Serigne Mourtala radiyallahu anhuma Serigne Mourtala neexale ma ci Mercedes moo tax mënuma koo ñàkk bañ a wax am na loo xamante ne bii fii laa koy wax fang ci tele bi mu concerné mu gën a concerné almbakiyu Ahmadou moom laa koy wooye ndax maa gis ku tedd ki bind waaye ci boppam noonu al mbakki yu ahmadu newul ahmadul mbakki yu moo tax ma koy wooye al mbakki yu ahmadu sëriñ Murta sëriñ Muntaxa ñëw fi rek ñu inauguré mosquée bi rek mu demee ni mu demee rek lépp doxe fa tàbbi géej du loolu yàgg na ñoo inauguré jumaa fu nekk mbir yeneen la ci biir ñu war koo topp di ko settantal nag ci bayyana lil alimu wal xabiru tabb yii na man tadbiruhu tadbiru te ñu ko war a setantal dafa am spirituel am temporel du càgg ne dañu fi nekk ngàmmaaral jëmale ba kañ ba kañ am ñu jàng li ñëpp jàng xam li ñëpp xam yaakaar ko tëdd ki moo tax ñii ñaar ñi man dama doon observé kenn par kenn fi mu toll daanaka daanaka daanaka ku ci ne am na lu ma la ameel parce que man damay settantal xam nga ne ko toog di suivre ba ci àgg nga fekk nga sol tubéy pyjama nga jóg rek teg ci sa sa sa ay bu ñëw gaynde gu tëx la dara yëngalu ma sëñ Maam Mor sax moo ko fi tudd bu dul woon loolu duma ko tudd ci mbir xale yeeg yooyu ku ne xam na ni ay gone bu ñu du ma ne ay gone sax ndax ay borom kër a nga ca yaa am soxna ki doom moo tax ma wax leen ni leen ñoom xanaa ñëpp mu tooñuñu léegi bu ñu tooñ nañ <laughs> nañ leen kii ñu tooñul yooyu sax bref duma ci sori ndax man sama philosophie man Macky bi ma wooyee téléphone dama ne ko ñun ñëpp war a dugg ci kasu bi amul ma sàmb amul ma demba amul penku laa dëkk amul soowu amul boor laa amul baadoola laa parce que déjà ñun ñëpp noo ngi ci kasu bi a addunya si junul mu'min ala yu Amadou nga fee di ma kii ndax day bañ ma mais jataay bi dafa ne xam nga ñii dama dégg ñuy wax ay affaire lema kii suukara kii oh hmm. xam nga dafa am loo xam ni wallahi gànna wax na dëgg Cheikh gànna maa ko wax ni ko kenn wër laa sàllalu xanaa am na ñoo xam ne kenn wër te jaar ci seen tur direct dafay am loolu ku tedd ki moo koy def gis nga barakatul maahi an la yan tasharat jooju mu wax wa xasamat kulliyati wa basharat daf nu ko tasaare tasaare ko ñëppam ak féppam allahu akbaru mimma kuntu afaaluhu la waxoon wala su axsha wala arju si wàlla si wàlla boobu nag ah man de waxoon naa ko ana sëñ Abdoulaat Bousso wa huwa lazi fi samaa'i ilahun wa fil ardi ilahun te mu am tur wu tudd azahiru am tur wu ni al baatinu te mu tudd baatin tudd di feeñ di nëbb di nekk ci kaw di nekk ci suuf dégg ba noppi ba noppi muy wax yàlla naan ko yonent yi nga bind yëpp ñi nga yónni ak ñi nga yónniwul koo ci bëgg a kaay fii ci man nga jël benn bien boo xam ne day sucré te day miellé wax déet koo bëgg a ci sa yonent koo ci bëgg yoolal koo ci bëgg a bégloo kaay jël ci man aw yi woo xam ne day saf sucré te day saf lem waaye yàlla kon ana magasin parce que kon mu ne xazaayinu rabbi futtahat lii wa zazahat li xeyril aza dunya wa oxra wa barzaqu léegi nag almbaki yu ahmadou sa télévision bii faw nag faw ñu ciy waxe nu ne te muy tege fi mu war a tege fan lay war a tege gis nga kenn gi mu doon kenn ba ni jutta bi mu la naa faaxal jumal bokkul fenn bokkul xuttale naa ma jëla jëy sin wa amal fii man Modou Mbacke maa ko wax fii la réew mi war a defaroo réew mi laa wax ku tedd ki moom noppi na ci ñun noo ci des ñun noo ci des dëgg la télé bi baaxoowul sax kuy wax euh, du jëmali ci daw la wala yu demee noonu waaye nag dafa mënta ñàkk ndax itam nag gis nga malaka ni sama wa maahin samadu maahindahu liixtaarahu muhammadu maanaam borom xam-xam yi duñ ci egg moom dañu ko tànnal te yonent bi moo ko tànnal li ci jàgg kus néew dara jagu ci sax ndax ak aqbalati dunya illa ya qablu wa bixtuha fa zala anil kablu hmm? ku ne xam na ne adduna moom bi mu ko moomee itam taxul mu soxla ci dara waaye xoolal ni mu nu ko tasaare xoolal suñ Mamor mii jëf yi mu fi def jëf yi mu fiy jëf te nga te nga ko doon wax ak keneen ak keneen ak keneen ak keneen ji Mbàkke yu waxi nopp man li ma li nga xam ne dama ne woon te sax ceddo murid ne tax ma egg foofu ndax loolu lu ma naroon na dox la te waroon cee waxtaan ak eh, almbaki yu Ahmadou mi ci communauté Mouride waaw économiquement financièrement loo xamante ni bii du doon sax maanaam ñuy xaar ay waaw ku nekk yi participer ku nekk yi participer eh, le mouridisme dafa am fu mu toll xam-xam bi bari lool xam-xam bi bari lool ci biir waaw maanaam ñu mën a génne ay milliers et des milliers de milliards ñu war koo mën a génne lool nag organisation lay doon programme lay doon bis bi moom xam naa yéen a wax ne plateau spécial mais da yaakaar naa ne moom la yaakaar naa tudd ko rek ndax Mbàkke yu Ahmadu mi kaalaam gi <laughs> ak man mii nga xamante ne bi daa mel ne rek dañ na ma kii dañ na nga xam ne man man taxi laa naroon a jël xaw ma woon nii bu ma téléphoné dina am caabi oto bu fa nekk bu ma mën a indi man taxi taxi laa naroon a jël lu dima ëpp te def di déedéet te war a ñëw déedéet taxi laa naroon a jël te taxi bi it moom nu mel baax na loolu daal xam naa ne daal li feeñ li feeñ man bi may ñëw damaa fees del moo waral bu ma feesee dama koy dégager dégagement la ci man xale yi miin nañ loolu ci man ba fi ñu toll duutu yëngal kenn ndax ndax bu feesee faw nga nga dégage waaye li Cheikh Gana wax sànq ci diggante suukar ak lem dafa romb yooyu waaw dafa romb yooyu xadim daw barki démb dama toog bëccëg gi añ jot mu ñëw di ma wax waxi dama daaki fekk ma nekk ci loo xam ne ma ne ko yow tu n'es pas sérieux waaw ma ne ko sérieux moom waxuma li nga sant ndaw a tax waaye sérieux defoo ko waaw yow li ma nekk nga may wax ay wax yi dama daal ki maafe jërëjëf waaw euh, jërëjëf Mbacke waaw moom xam naa dama koy yemale fii ndax man li ma kii moom li ma li ma li ma xaju xajul fii li ma bëgg a wax xajul fii xajul ci waaw moom daal mbekke mi daal moom wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla ku ne xam na ni ni ngay bëggee ku tedd ki moom mun dara mun ta dend ak moom waaw loolu moom ñëpp ko xam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 ak bi jëm réew. ndax lii am lépp tawfeex sëriñ bi moo la ko may. gën noo gàtt noo tawfeex sëriñ bi.